personnes sont actuellement au village de Ker Inch'Allah, pour procéder au, à l'inauguration du, du, puits que vous avez bien voulu financer. Ah, comme nous le savons, nous sommes l'association Saku Yew. Nous sommes pour inaugurer la TN qui est fait. Qui a fait TN, c'est un jigen. ab jigéen la boo xamante ni dafa yërëm jigéen ñi gis ne jigéen dañuy sonn li ñuy daj di dox ay kilomètres yu bëri pour dem uti ndox mu am cofeel am yërmande moo tax mu def teen bi

ne leen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sant nañ leen baax gërëm nañ leen yéen yàlla dafa leen jàmm eh, mbootaay ak yéen yàlla yàgg ko yéen yàlla yokk ko di yokk ko ci wér yokk ko ci xewat yokk ko ci bànneex kontaan nañ daal bu baax kontaan daal lañu ma def kontaan nañ kontaan nañ jërë ngeen jëf yéen yàlla fay leen yéen yàlla leen fa yiw yéen ngeen dellu si jàmm euh, ñu ngi gërëm ñi nga xam ne soxna si nga xam ne moo indi eh, teen bi euh, ba jaare ko ci yéen doomu aadama mën doo dund mukk taan yu daan ndox kon ndox buñ ko doon wax njëriñam mën nañu wax fii ba xëlëg njëriñ ndox du jeex kon ku lay ndox rafet na sa àdduna cetal na la rafet na sa diine comme ni ko borom di ko wax ndax mënoo lislaam mënoo dem mukk te àndula ndox mënoo xam kon yéen ñi nga xam ne yeneen di lii yàlla rek moo leen mën a fay ndax bu xaay la ñu mun am teen bi ñu ngi leen gërëm gërëm boo xam ne am na tàmbale waaye amulu yem kaay kontaan nañ ci kontaan boo xam ne bi laay kontaan kontaan euh, dafa ëpp ñun dañ doon waa bu waa boor koñ bi dañ doon dem ba ci garab di ko defaroot wala ñu jëm ci yoon climat defar defaroon waaw bu ñu indee lii ñoom sa coono jeex na daanaka boo xaajee dëkk bi ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp fii la ñoo doon te kon nga xam nga lu njëriñ la kon te njëriñ boobu loolu njëriñ ko njëriñ ñu ko indal kon ñu ngi lay ñaan yàlla nañu la def barke seen liggéey yàlla nañu yàlla taxaw lépp lu yàq ni yàlla nañ ci la musal. jigéen ji def lii ñu ngi lay sant di la gërëm te xam nañ fi ñuy féetee ndax jigéen ku ko defal teen defal nga ko lépp surtout ñun dañoo ñàkkoon ndox sonnoon nañ lool xettali nga ñu yal nañu yàlla yal na la yàlla xetali yal na la yàlla xettali li nga bëgg yal na la ko yàlla may. xettale nga ñu gën nga ñoo neexal suñu sëy yi ndax jigéen ko ko taajal teen sëyam neex na sonnatuñ merci beaucoup gërëm nañ leen torop ñu leen di di leen sant surtout jigéen bi ko def nii ñu ngi koy ndokkal bu baax a baax ndax lim ñu defal defal nañ ko suñu goro la ko defal sax ndax ñun wàcc nañ waaye nag ñu koy gërëm di ko sant yal na ko yàlla yokk te yàlla barkeel fu mu ne bëggoon na ñoo xam nag nu mu tudd ndax ñu mën koo fental wé way

Alhamdulillah, avec ce puits-là, ils vont pouvoir vraiment se, laver, se vêtir, puisqu'ils vont pouvoir tenir leur foyer. Alhamdulillah aussi, c'est un soulagement pour la population qui faisait des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ah, nous pouvons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous, récompenser. Vous qui, depuis longtemps, avec d'autres euh, projets qui, collaborent avec, l'association Sakuyu, pour vraiment aider les populations, pour les sortir de ces, souffrances. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser. Nous ne cesserons pas de prier pour vous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala vous garder dans votre balance de hasanat et Inch'Allah que vous puissiez un jour rejoindre le prophète sallam dans le Jannatul Firdaus. Barakallahu fiqh, wa jazakallah khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.